bi ci topp nag mooy borom rab dëgg ñaare buñ koy liggéey daf koy teena nelaw day tëdd di xoole ku digg yëpp du mën a fexe ba xab bët bu rëccee ba nelaw sax day gént gént yu bisaar daal di yewwal ci ëpp daal balaa nelaw daanaka fajar jot waaye bu leen ba loolu weesu daf koy yóbbi bu tëddee di nelaw du mën a jóg day tëdd du mën a fexe ba yeewu bu dee ku daan yeewu fajar di julli la day biddanti du mën a yeewu même bu naajee yeewu dina yeewu lu yàgg mel ni dañ koo naj ci lal ndax yaramu diis ak tayel nga xam daanaka day mel ni ku mënta yëkkati benn cër rek loolu liggéey da koy def ñaare dafa am nag bu dee koo xam ne dafa am ay àndandoo borom rab dëgg ñaare buñ ko dee liggéey rab bi def ci wàll si day ñëw di ko jéem a sofe moo waral muy gis yenn image yu raglu yi ak yu mel noonu waaye bu dee borom rab nag lu ci ëpp rab bi mën na tax du neex a liggéey buñ koy liggéey du pour mu jàpp day jafe bari nit koo xam da ngay gis muy yàqule ay otoom di yàqu wala ay matériel wala juróom di dee fekk ni ndimbalul yàlla la waaye liñ li jëm si woon ci yaramam la jëm si woon waaye loolu daf koy fekk lool moo tax yar ak jur baax wala am yenn matériel yi ndax lu jóg jëm si ci yow rek ci yooyu lay njëkke ngay gis koo xam ne day jékki-jékki otoom yàqu wala muy paan paan yoo xam ne duñ ko mën a justifier day jékki-jékki rek paan paan bu ñàkk fayda bu dépanne mu paanaat xeeti gàllankoor yooyu wala bu yore ak jur jur gi jékki-jékki dee yooyu dafa am yooyu jëm si ci jëmmam ci yooyu lay tàmbalee bu dee ku yorul dara nag mën na def direct ci jëmma loolu moo tax yooyu mat di bàyyi xel rab nag xam naa dinañ ci ñëw moom bokk na ci li gën a solal nit ñi ndax ñu bari ñenn ñi duñ ko gëm ñenn ñi dañ koy ragal ba duñ ko bëgg a tudd waaye bari na jeexit yu muy def ak gàllankoor yu muy def ci nekk yoo xam ne hmm, xëy na bu nit ki xamee signe rek dina tax mu bàyyi ci xel ba bu gisee yooyu mu xam ni am na lu nekk ci moom ndax xam li la daal genn wàllu faju la boo xasee xam ni problème am na rek di nga xam solution bi ngay wut kon loolu noonu la demee ci wàllum liggéey ak rab liggéey nag moom bari na lu mën a yàq léeg-léeg nag du def lañ ko doon def waaye leneen lay def nit ki amee ndimbalu yàlla wala moom kaaraange man naa bañ a def lañ ko doon defloo waaye mu diisal yaramam rek wala mu taayal loo ko wala mu jàpp ko tuuti waaye fekk sax lu gën a bon loolu lañ ko doon lañ ko doon fexeel